seen commissariat ñoo fees. Mm. buñ a les observateurs. Mm-hmm. c'est ça. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu ngi ci campagne donc tey jii on a des étrangers parmi nous. ñoo rax quoi. bu ñu génnee di manifester kenn du dee. parce que ñemeetu ñu génnee ay armes létales di rey nit seen nerf yi dañ leen di téye du ñu génn. comprendre nga kuñ ci jàpp c'est pour te mettre hors d'état de waaye bu guddee ñu bàyyi la wala le lendemain ñu bàyyi la parce que ça qui s'est passé. Mm. donc na nit ñi xam ne pour sa askan jar na ko. Ousmane Sonko bi nga xam ne booba léegi mu ngi taxaw askanam li mu sutu li mu subir ci ay sacrifice jar na ku nekk ci ñun ñam ci tuuti. Mhm. et c'est ça qui va faire reculer Macky Sall mais du police du gendarmerie du armée parce que kenn ñaanul armée dugg dans le jeu du euh, les les acteurs politiques. c'est le peuple qui doit montrer à Macky Sall ñun ñoo la faloon ñoo la jox sañ-sañ ñoo la jox nga li ngay signé décret ñun ñoo ne d'accorduñu ak li nga def. Mhm. et c'est à partir ok man kii laa bëggoon a euh, poser question imam euh, taxawaayu taxawaayu modab actuellement lan la war a doon mm-hmm. parce que gis na yéen a ngi doon wàcc li nga xamante ne moo di campagne bi defoon ngeen benn conférence de presse pour wàcc ko def yooyu yëpp mm-hmm. mais présentement finalement amatul ndax da ngeen dem ci terrain bi wala nan ngeen di taxawee wala da ngeen di génnee course yi waaw mais Moustapha loolu mu ngi ci am mu ngi am ba léegi am naa ci laaj ko yóbbaale mm-hmm. seen taxawaay lan la war a ne à part lii est que Modab yéen am ngeen initiative. Mhm. boo xam ne mhm. da ngeen di wër che famille religieuse yi fi nekk. Mhm. parce que ku wax Modab wax doomi daara yi ku wax doomi daara yi munoo ci exclure famille religieuse yi fi nekk. et que ñëpp xam nañ actuellement euh, taxawaay bi sénégalais yi di xaar dese naa doon bi am wala bi ñu gis boobu. est-ce que yéen ci seen i initiative yéen a ngi xalaat wër foyer religieuse yi. présenter situation bi xalif généraux yi donte jàpp nañ ni war nañ ko yëg parce que dafa bëri benn jamono joo xam ne bii Ousmane Sonko doon def tournée bu ñëwee ci yenn kër yi danañ ko ne li nga bëgg mbañ gàccee gaxay maye. tegal lépp ci su baaga ca mbañ gàcce ga mm-hmm. tey nag war a ngeen a wër xamal li ñu ne mbañ gàcce ga bañ nañ ñu dem fa mm-hmm. loolu dafa am solo c'est important loolu dafa am solo c'est important est-ce que yéen initiative boobu yéen a ngi koy xalaat wala yéen a ngi koy mi ngi seen kanam daal mm-hmm. waaw bu dee li jëm ci li nga wax léegi laay njëkk a tontu muy wër ci kër kilifa diine yi mm-hmm. ak même pas kilifa diine yi sax dana ci romb nit ñi wax ak ñoom informer leen li xew mm-hmm. mais sëñ Ousmane mais kilifa diine ñoo la gën a xam li xew jarul dem xam nañ li xew ñaar a am tànk day tàllalu mbaamu bànk boo dem fa am na ñoo xamante ni boo fa demee fi mu ne ni dañuy fatu am na ñoo xamante ni boo fa demee yaag ñoom yenn bokk position parce que yëg nañ la xew ñoom balaa dara xew sax dañ lay woo téléphone ci yenn daara yeeg yenn njiitu kër yi di la wax ne la combat bi ñun ñoo ko bokk combat bi nekkatul rek combat modab donc dafa boo boo seetee quarante six département yëpp bu ci nekk am nañ fa installé nañ fa modab muy doxal mhm. ña fa nekk nag ñoom ñu ngi déggante ak daara yooyu di doxlante doxlanteeg ñoom ñoom tamit ñu ngi jot ay information mais problème bi nekkul foofu nekkul foofu mooy ni bu ñuy seet mooy ci question bi mu posé dama njort ni am initiative comme ni ko mag kii doon def euh, euh, président Ousmane ko dem ci këru diine yu mag yi giseek ñoom mais bër ki demb li xew kenn du la ko wax bi Macky Sall defee li mu def ba pare ñu naan Sidiki Kaba dem na benn barab lañ ca wax dégg nga ko information yi ñu génne. te ni euh, kilifa gi moo ko wax te waxu ko. Mm-hmm. ba ñu dem ba Cheikh Thioro di ko démentir ci ci ci plateau ni ñu ko tuddee ci biir assemblée nationale. Mm-hmm. gis nga ko. Mm-hmm. donc pour wax la foofu ne la. ah ñun li ñu war a dox. ñu ngi koy dox ci wàllu daara yi. li ñu njëkkoon a tase ñun mosuñu njort. mosuñu njort ne lii xew nii te Macky Sall def ko muy coup d'état bi mosuñu ko njort ci Sénégal. ni mu bette ñii mel na ñoom jante bette ko ñeneen ak ñeneen ñun noon la ñu bette mais am na am na voix bu ñu jëloon boo xamante ni ñun dañu pare campagne te campagne boobu ñu ngi ci duñ ci jóge parce que damay dégg léegi Moustapha di expliquer ni amatul campagne mu ngi am ah man de ba fii may wax ak yow tey jii fa ma jógee gox ba ma jógee démb campagne nañ te tey ñu ngi campagne ba fii may wax ak yow waa Pire ñu ngi campagne kon jàpp naa ni campagne mu ngi am mu dem ñaara am campagne boo xamante ni boo sonorisé gendarme yi ñëw dogale la te foofu nga baal ma rek euh, jante moo ko doon wax mais damay dégg rek ñuy collé motif président Macky Sall collé motif mais gendre gendarme yi ak policiers yi xanaa ñoom maintien de l'ordre bi ñuy wax dafa dañ ci épargner Macky Sall wala dañ ci épargner waa APR. ba ñoom lu leen neex ñu def. lu leen neex ñu tëgg lu leen neex ñu ñu ñu ñu ñu ñu wane ko ci biir réew mi te ni ñuy def opposition bi di leen maate di leen toroxal mais fekku ca ñee loolu laa wax ban taxawaay la ci ki jiite gendarmerie am ak ban taxawaay la ki nga xamante ni moo bu dul dara nañ ci seet mécc mi ñuy def nit ñun lañu fi nekkal te ñun ñooy askan wi beneen bi ci des ñu seet ci seen diggante ak seen borom parce que tey ki jóg ne la damay dem Saint-Lazare lan nga fay wuti damay dem dama war a commencer suma campagne campagne bi commencé na te amul benn article wala benn décision boo xamante ni taxaw na pour ne campagne bi ñu war a def dañ koy arrêté amul. bu dee lépp i sàll def eggagul foo xamante ni dañu war a taxaw ni benn campagne bi ñu fi am arrêté nañ euh, ni ñu koy tuddee te élection définitivement. Mm-hmm. kon nit ki am na sañ-sañu ne comme que campagne bi arrêté wu dañuy dem campagne mais Saint-Lazare lu ñu fa def. Mm-hmm. balaa ñuy ñëw jiitu nañ ñu fa. bi may ñëw léegi ñu ngi ñu ngi ñu ngi topp waa piir mm-hmm. man gazé nañ ma fi ñu séddale xaw ma nu ñu koy defee ñu téye seen mm-hmm. affaire yooyu tasaare ko def ko TikTok. Mm-hmm. mais yooyu moo nekk loo xamante ni dafa ñaaw ci ñi nga xamante ni dañuy takk der. parce que nu mu mënti demee tamit bëgguñu leen a wax loo xamante ni rafetul waaye tamit ñoom waru ñuy def lu ñaaw. loolu nañ ci bu ñuy wax Macky Sall tamit. wala ñuy wax keneen ku mënti doon nañ leen wala député wala lu mënti doon ñoom tamit nañ leen ci soraale mm-hmm. la président Ablaye Wade doon wax takk der yi ay nit lañ weesuwuñu ay nit ku ñu ci dóor fayu leen <laughs> mais loolu Ablaye Wade da ko wax seen droit la mm-hmm. mais fekk nit di ko toroxal ñuy def suñu euh, waa ji nekk ci prison bi dóor ko ba mu damm mm-hmm. bërki dem maa ngi lay wax ne la ci biir assemblée député Ismaïla Diallo mais niñ ko def du ko nettali jàmbur. sëñ Coro niñ ko def du ko nettali jàmbur. te mënoo cee xàmmee kenn ku la koy def parce que dañu câble wu. waaw ah bon ci génn bi. ci génn bi. waaw mais toroxal nañ fa député yi laa lay wax. ci média laay waxee nii. Mhm. demal nga laaj eh, la Diallo dana la ko wax demal nga laaj Cheikh Thioro dana la ko wax. Mhm. beneen bi ci des ñi koy def doo gis matricule ci ñoom pour nga mën a taxaw ne matricule tel tel tel. ah ñoom GIGN mënoo leen identifier. mais mais même police mënoo leen identifier da ngay tase benn police ci mbedd bi du am matricule. du am numéro du am dara. léegi yow foofu nan ngay mën a lijjantee ko lijjantewul mbiru député yi nooy lijjantee mbir leneen. Mm-hmm. modab li nga xamante ni moo ko yëkkati. Mm-hmm. mooy wàllu diine. Mm-hmm. yamalewuñ ci rek ci sëriñu daara bi wala leneen diine bu mu mënti doon. lépp loo xamante ni président Ousmane Sonko waroon na ko cee dox ñun dañ ko koy yombalal ci wan leen présenter leen fi nga xamante ni fi la président Ousmane Sonko wala boog coalition jomaay nar a jëmee réew mi ak lan lay sedd ci ëllëg ñi nga xamante ni ñooy ñiitu diine te lim ci prévoir nekk na loo xamante ni lu yaatu kon ñun suñu rôle nekku rek toog à côté na la di xoole wala ñu bañ a participer ci li nga xamante ne moo appel bi Euh, suñu responsable moral muy ki ñu jiite muy Cheikh Tahir xam naa jombul ne ci guddi gi nii dana ci ñëw jot naa ci jokkook moom mu ne ma il faut ñu am nu ñu def mais ñu ngi def ay ñu ngi ci biir terrain bi ci ci ci ci suuf daal loo xamante ni jëmul kaw mais li ñu mën a wax li naqari askan wi yëpp ci décision bi wala act bi Macky Sall jël te mu nekk act boo xamante ni act bu nekk anti démocrate ni mu naqaree ñëpp ak ni ko ñëpp di xeexee noonu la ko Modab di xeexee ñun ñi Moustapha noonu lañ koy xeexe te insha allahu taala suba suba maa ngi woo ñëpp bu ñu jaaxlee parce que période bi ñu nekk du période de tareet ab dajaloo du période demande autorisation période la boo xamante ni période campagne électorale la am nañ sañ-sañu génn wax li ñu naqari bu demee nag ba am ñoo xamante ni société civile bi la ñoom ñoo ko jiite woote ci mais sañ nañu génn ne ko Macky Sall lii du fi jàlle du yoon mais imam euh, par rapport ak woote bi sànq maa ngi dégg euh, monsieur Dionte mu ngi koy wax euh, que la population vraiment xeex bi mu nekk seen xeexi bopp certes mais population bi aussi bu ñu gisul aussi les leaders politiques ñu am taxawaay boobu parce que la dernière fois gis neen certains leaders yoo xam ne mun nañu wax ne taxawaay bi naroon waroon taxaw par rapport à ça defen ko dañuy ñëw devant les journalistes les caméras ñu ñëw def le show après ils rentrent tranquillement chez eux population bi nga xam ne mën nañu wax ne carrément combattant yi wala sax euh, kii nga xam ne moom leen jàppoon ne moo nekk seen repère nga xam ne mu ngi nekk en prison. Mhm. donc sur ce lan moo war a motiver cette population pour vraiment ñu génn. est-ce que cette proposition qui est là foofu jàpp nga baal ma dinaa la ci tontu jante ngi nii toog. li muy def am na solo. te ci te ci te ci gaañi la bokk. certes. keneen tamit bu nekkee euh, ma nga ci ruqam la muy def Mali mu ngi ci xam la wax mu ruq bu muy làqatu mu ngi ci plateau yi mu ngi ci mu ngi mu ngi informer nit ñi lu ñuy informer mais mais déedéet déedéet bul jàpp xam nga man man man wax boobu laa bëggul sax muy avancer ñaar laa bëggul muy avancer waxu report ak waxu leader yi dañoo làqatu bàyyi population bi ñuy dem mais man fekk naa jamonoy Abdoulaye Wade hmm. fekk naa jamonoy Mamadou Dia moom ni ñu koy sax fir la waaw du Dia ak euh, PIT hmm. Mas mu Diop hmm. gis nga dirigeant bu mënti njiit lu mënti doon ci opposition njàpp hmm. jàppal ni bu wootee daje ñaaray am hmm. soit ñu doxal démocratie bàyyi ko mu dem ba egg ca ndaje ba wala ñu kar ko ci këram gaze ko dañ koy kar ci këram ne ko doo dem wala ci yoon bi doo dem mu ne damay dem forcé ñu gaze ko yow la nga mën mooy protéger leader boobu delloo ko waat këram mais suñu leader yu bees yi ñu gis tel n'est pas le cas. en fait kañ ah kañ si loolu nga am. oui à part Ousmane Sonko franchement les leaders qui oh, sont là. waaw euh, kañ damay bëgg nag damay bëgg damay bëgg. bul maasel bul maasel ni ñu koy wax ci wolof bul maasel. nii keroog moom Thierno Alassane Sall keroog moo taxawee vraiment taxawaayu leader boo xam ne franchement. gis nañu mais ñun bu ñu taxawee Ousmane Sonko taxaw na. man man man taxaw naa wala. taxaw mais yow laajoo réew mi. no non waxuma laaj réew mi Ousmane Sonko mooy laaj réew mi Ousmane Sonko may laaj réew mi mi mën na nekk ci coalition man mën naa nekk ci biir Pastef kon bu fekkee ni moom dafa nekk ci biir prison bi jante di def yitteem pour informer nit bu ñu wootee mu génn ñu gazé ko lacrymogène mais représenté na euh, wala wala wala citizen wala El Malick mais représenté nañ président son ko